jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi di leen jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax di leen wax ne tey nag ñoo ngi seet si le vainqueur le vainqueur de mbay Gouy gi hmm. seet si ko tey bi Grand Yoff gis ngeen mbokk yi euh, démb la bëri woon tey ñu fekk ko fii école muy entraîné loo xamante ne nag gëj naa koo gis mbëri daanaka ku ci daan wala ku ci daanu da ngay toog di noël wala toog di feetu wala boog toog see am di jàmm seet si la hmm. nuyu naa la Zarko. waaw gaynde ñu ngi lay fay di kontaan ci sa teewaay biir Grand di remercier ñëpp ñi nga xamante ni jàppoon nañ ci làmb ji di remercier surtout ñi ma toogal nii les lutteurs ñi nga xamante ni ñoom laa doon guddandool <coughs> di bëccëgandoo ak ñoom di fajaroo ñoom di leen nuyu bu baax a baax du ma lim nag ku lim da ngay juum mbëri Grand Yoff mbooloo yëpp écrit bi ñëpp du ma ci lim kenn ak dirigeant yi ñëpp ñu ngi leen maa leen di sant bu baax a baax di leen gërëm. rawatina rawatina aussi population de Grand Yoff population de zone 7B kontaan nañ ci ñoom bu baax a baax di leen masaw di leen jéggalu aussi parce que eh, ñun saa ñu xewlee rek Grand Yoff day day day yëngu donc yoon la bu bu la bu affaire yi jàllee ñu jéggaluwaat population Grand Yoff di leen xamal ni seen doom la rek man Zarko doomu Grand Yoff laa Eh, seen doom moo demoon uti démb yàlla may ko mu indi dëkk teg ko waa dëkk tegal ko waa Graaf bu baax a baax di leen remercier aussi yéen aussi seen disponibilité seen teewaay parce que ñun lii rek mooy suñu mooy suñu objectif quoi. Graaf euh, dem ci karam donc euh, ñu ngi di la xaar na nga ba nga laaj ma leneen si aussi. Euh, balaa maa ñëw ci combat lan moo waral nga am ndam démb ak ndam nu mu neexee ndam ni mu toll. nga ñëw tey entraîné si. waaw mais c'est parce que dépassé wuñu quoi. nekkul làmb boo xam ne daf ma dépassé man peut-être sama entourage bëri na si ñoo xam ne daf leen entou eh, daf leen dépassé même même ba ci mbër yi ma nekkaloon bëri na bëri na ci ñoo xamante ne loolu daf leen dépassé. Mm-hmm. mais man làmb ji dépassé wu ma woon quoi. Mm-hmm. parce que eh, eh, j'avais les les les les les pieds sur les épaules donc yóbbu ma woon fenn franchement parce que xam naa ni li ne ci man. xaaj bi moo ko yenee mbay guy gi rek day bàyyi. Euh, li ne ci yow xaaj bi boo ko yenee mbay guy gi day bàyyi fi may dooyee ci ci ci ci waxtaan wi rek mooy euh, gis nañ ci mbay yoo xamante ni bu ñu voyagé bu ñu ñëwee da leen di tànnal yoon wala dañu xool lu nooy ñu dal ci mais da nga ñëw rek fekk li li li gën a ës wala li nga xamante ni moom la ñëpp teg seen bët. Mm. yow nga ne loolu laa jël. Mm. ba tax na kaw seen premier face face am na coow loo xamante ne am na ko am na ko. ba njott naa ne sax bi nga bi nga ñibbee li nga jot ci appel moom gëj ñu koo jot. jour boobu <laughs> ba léegi sax téléphone bi bàyyiwul ba léegi mais loolu loolu sant yàlla rek parce que nekkul loo xamante ni gan la ci ñun. Mm-hmm. comprendre nga miis nañ ko te du ñu yóbbu fenn man boog eh, bëre man dama jàpp ni amul amul sama moroomu góor boo xamante ni mun nga ma jàngal bëre. Mm-hmm. wala mun nga ma jàngal xeex. parce que Grand Yoff laa juddoo quoi Grand Yoff laa rek loolu dafa dafa dafa dafa ëmb lu bëri parce que étant jeune dañ lay xamal jàngal la eh, xamal la lan mooy yoon xamal la yoon bu baax xamal la yoon bu bon. léegi yow nag boo demee ba ba ba ba mature yow yaa xam yoon bi ngay jël quoi te man boog dama part personnel xam naa ni yoon bi ma jël nii baax na te maa ngi ciy gis avantage yi. sa digganteeg Mbaye Gouye Gui lan moo waraloon coow li parce que gis nañ fu ngeen tasee. <laughs> coow li day bari ba ci signature yi. signature bi ngeen mujjee def am na ay kàddu yu ngeen échangé te. Uh-huh. Euh, ngeen jugee ci digg géew bi ngeen ajo ci kaw tribune ba. Uh-huh. ba amaatee ñoo la mujjee séparé lan moo nekkoon. seen seen seen diggante yi ñaar. non dara nekkul suñu billaay wallaay dara nekkul suñ diggante. lu waraloon coow li. billaay cest à man sama man damay jaay sama làmb. Mhm. loolu sama stratégie bopp la. damay jaay sama làmb quoi moo tax euh, bi may wax ak promoteur bi ne ko bul jaaxle. làmb ji day fees yow ba nga tiit parce que am na beneen journée bu doon bu ñu doon tëgg. Mhm. comprendre nga. Euh, arène euh, nationale arène nationale am na beneen journée bu fa amoon. promoteur bi ñu wax ci wax ci wax ju ay façon wax yu nekk mën na ko bul jaaxle yow bu bul am benn souci làmb ji day fees ba nga tiit yow te effectivement noonu la demee parce que man damay jaay làmb damay jaay sama làmb parce que xam nañ ko yàgg nañ dem ci bis bu nekk seetaan nañ bis bu nekk yóbbu nañ tamit mbër mu bëri bis bu nekk yóbbu nañ mbër ba mu dem ba jël roi des arènes hmm. kon donc eh, bis mënuma jaaxal bis nu mu mën di toll eh, xam nañ fiñ ci yem foo ñu ci yemloo ci la ñu yem te làmb ji aussi tamit eh, dama dama ko maanaam boog dama ko yóbbu benn niveau boo xamante ni sénégalais xaaruñu ko woon quoi. bi nga dugg see ci digg géej gi maa ngi la ko bi nga bi nga dawee dongali maanaam la mm. dekkil nga làmb. si bi ma sottee ko soow bi. loolu mais bi nga dugg see ci bi stade bi gis stade mu mel. ak mm. bawol bawol yi mu leer na ne eh, li ñu waxoon la ñuy def dañuy tëj stade bi bi dugg see gis leen mm. stressé tuuti. man xam nga kañ laay gën a mën a bëre. Hmm? kañ laay gën a mën a eh, def spectacle pour bëre. ma dem bëre ànd ak benn nit mu leer ma ne ki ma toggal ci mukaay man ak moom kese ñoo ànd. amul en plus gis na démb ay booy rek nga àndal. si parce que nekk nañ ay booy yoo xamante ni seet nañ loxo eh, yéene nañ ma te xam naa ni aussi yéene nañ ma xam naa ne aussi yéene nañ écrit grave te xam naa ni tamit moom même bu fekkonte ni ñoom ñoo moom ndam li ñoom ñooy joxe ndam duma ma jóge sama gàlle parce que ñoom dañ ma def comme seen bopp man ma def leen comme sama bopp. parce que dañuy wax rek eh, dëgg xale mun na ko yor mag mun na ko yor comprendre nga lenn rek mooy mooy mooy mooy tax mu mu ñu avancer mooy képp koo xamante ni yaa ngi yaa ngi seen nit muy nangu nga koy wax dëgg écurie Grand mbooloo ñi fi nekk ñi ñëpp xam nañ ma xam nañ ni Zarko du du dugg ci lu ñàkk fayda du la ko wax waxloo du Zarko ci leen nga koy gis ñoom ñëpp muy lan entrainement entraînement nga def loo xamante ne du yoon sama rax nga dam lay woo dam la koy wax mu neex la nga mere ma après nga bañ ma mere man je m'en fous après bu ma génnee fii nii bunt bi fàtte naa ne sax waxoon naa ak yow man noonu laay fonctionné. moment moment bi nga ko gis muy tuus. Mhm. stade bi du yuuxu lan nga xalaat ci sa xel. kan mbay mbay gi non loolu dara dépassé wu ma sax. billaay dépassé wu ma sax. parce que démb tuus na tuus mu neex. ànd ak waa Bawol Tapha Tine ñëw. stade bi yëngu. non yow mu mel ni dafa am lu ñu ko dee. dawul sama yaram. <laughs> kon moment bi mu tuus yëguloo daal. non lijjë bi laay bu ma woon sax ma ñëw tuus la ko. non ñemewoo lool. man gis naa gis naa doon fecc de. gis naa fi mbër gis naa fi mbër di sotti galaaj nga naan moo dem ba dafa mer. Mhm. dama bul fecc baaxoo waayoo <laughs> waaye dafa garaaw <laughs> maanaam eh, boo bëggee dëgg-dëgg eh, Zarko mooy susu làmb ji. Mhm. Mm. Zarko mooy susu làmb ji quoi parce que man damay damay jox bis a xam. maanaam boog yeneen adversaires yi may am. Mm. Eh, fi may yóbbu làmb ñoom niveau boobu egguñu fa. lan moo tax mbay tuusee fii nga ñëw ba ci digg géew bi samp fa sa tuus. waaw mais c'est parce que xam nga tamit eh, loo jaay jaay làmb ji am noo xam tamit da ngay dem parce que mm. fi ma fi mu ñu taxoon noonu. Eh, xamoon naa ni man du ma tuusee foofu man xamoon naa ni ci digg bi laay tuusee mais man maa ni sama booy ñoom man maa ni Seck yóbbu leen fële ñu ruube leen nañ leen dem fekk foofu ruube leen ba pare. ñu dem fekk leen fa ruuba leen ba pare ma bàyyi leen fa ne leen kaa leen dem. kon démb daal ji koy waga nga leen jaay. non dafa leer. <laughs> mais moment moment bi mu. simee nga dëkk moment bi mi lu tax nga doon daw di wër stade bi. non mais yow loolu loolu li ma ci dégg wax li ma ci woo ci ay paa waxuma ay jeunes mm. ay paa yu xam làmb surtout père Dégol. Mm-hmm. père Dégol. Mm-hmm. moom daf ma xaar xeeri di taw mu xaar ma. ne ma booy bari neexul ba neexul booy yow yaay làmb. ak Max ne ma Zarko yow yaay làmb yow waroo gëj ci làmb parce que yow da ngay def li nga xamante ni làmb daf ko laaj. Hmm. Hmm. loolu nag eh, fi ma siy dellu si mooy dama ciy lancer benn appel ci hmm. eh, waa Grand Yoff. laa ciy profité di leen lancer benn appel. ñu xam ne dañoo am mbër boo xamante ni c'est un athlète hors amul benn gox bu ko am ci àddina parce que lan. mën na bëre macha allah mën na xeex macha allah te eh, da koy teg ci yoon eh, ragalul ay ragal sax garaawul yooyu détail ñoom xam nañ man xam naa eh, gis nga mbër boobu soo ko amee da nga koy téye jéem a fexe ba mu indi le roi des arènes yaa comprendre ñun parce que loolu moo ñu indiwaat di lancer waat appel boo xamante ni di wax Grand yëpp na ñëw jàppale écurie Grand mbooloo ñu jéem a avancer jéem a jéem a nekk ci leneen. jéem a yëkkati turu Grand parce que ñun loolu moo ñu intéressé Grand F jëm ci kanam Grand F dem ba nekk au niveau mondial ñun ci loolu la ñuy dox ci loolu la ñuy wax loolu la ñuy woo jeunesse su Grand parce que ñun ñuy étiqueté loo xamante ni ñun doomu Grand F yëpp neexuñu foo waxee ñu ne Grand F ay sàcc foo waxee ñu ne Grand F ay agresseur c'est pas vrai ça c'est faux amul fenn doomu Grand F xamul loolu ñëw leen ñu defaraat suñu Grand F changer étiquette Grand F te ñun mun nañu ko te buñ ci buñ jàppoo ñun ñëpp. mun nañ dem ba dindi loolu tegee ko nële de côté loolu nag maa ngi ciy woo doomu Grand Yoff yëpp l' ensemble zone 7B de Grand Yoff 100 pour cent Grand Yoff la ñuy woo ñëpp nañ ñëw ñu ñu jàppale Grand Yoff jéem a changer étiquette bi jéem a avancer loo Grand Yoff te loolu nag fenn rek lañ ko mun a jaarale yàlla def na ko mooy ci jëmm ju xeebu ji lañ ko la ko yàlla def ak Grand Yoff écrit Grand Yoff mbooloo ñu ngi ciy tàllal ñëpp loxo bàyyiwuñu kenn les autorités les les professionnels ñëpp bàyyiwuñu kenn rawatina nag prési Euh, muy président Badara Kebe président écurie bi moom ñu ngi koy xaar mu ñëw jiite loolu ñu defaraat Grand Yoff xam nga changer image yu Grand Yoff di woo ñëpp nag ah ñu kenn même dirigeant yi aussi ñoom Père Soudou ñoom Mot Seck ñoom euh, Omar Ndiaye ñoom euh, Jibi Samb ñoom Issa Dieng gaa yëpp daal bàyyiwuñu kenn ñoom ñoom Aada Baaxum ñoom Abdou Kane ñu kenn ñu ngi woo ñëpp ñoom bëgg fàllu ñu ñëwaat aaroona grand bi yor saal bi ñu ngi koy remercier moom si tamit bu baax a baax mu ñëw ñu ñëw ñu jàppale booy yi parce que ñun suñu wàllu wéy na ba pare quoi. Mhm. ñun ñu ngi gis leneen te ñu ngi am yeneen business yoo xam ne ñu ngi koy def. Mhm. donc foog ñu fi foog bàyyi fi benn pépinière boo xamante ni même bu ñu demee toog sax suñu xel dina dal man bu ma demee nekk Europe loolu moo ma gën a metti ma dellu si waat barke Serigne Saliou parce que dama toog di gis résultat bi écrit bi gam di am neexuma sama yaay bi ma ko nee damay ñëw dafa dafa ma dafa mer. ba loolu moo tax mënu ma woon sax toog naa presque deux mois yoo xam ne ñëw ma sama gaale nekk ma woon sama gaale te maa woon biir Sénégal parce que sama yaay daf ma mere ba ne bu ma ñëw bëri si. Mm-hmm. làmb tey xam na li may dépensé man ci làmb parce que da bëre Grand Yoff kenn du la jàppale. Grand fii nii da ngay bëre benn autorité du la jàppale combat bii nii bëre naa ko ci sama jom ak sama fulla ak sama moyen bopp billaay wallaay taalaay. léegi ñu ñëw ci digg géew bi. Mm-hmm. làmb ji toll ñu gis sax ko takkul daal. non mais yow jaru ko. mbay da nga bañ mu jàpp la wala. non moom bu suba sax du ma jàpp jarul jaru ko jaruloon jarul tax du mbër boo xamante ni da ngay da ngay yàq ci moom xaalis. non comment social xaalis bu bëri def loolu. def naa si xaalis mais doo du du ay tax ak ay yooyu noonu quoi non non mais def naa si xaalis moom def naa si xaalis bi wax tàll ba tey nii ma wax ak yow nii sax maa ngi ay bor yu may xaar. bi ngeen duggee ci digg jiw bi. sànq <laughs> hmm? sa yaram diis benn yoon. non yow bàyyil génnal ci loolu a ci ma njàkku. kon kenn du ma jàpp. dama gis benn moment bi ngeen di lewaatoo mu tàllal la loxo di xool ba xam yaa ngi koy gis wala gisuloo ko. ma ne ko maa ngi lay gis bu baax gis ñëwal. je te vis. acci ma njàkku ma wala mboos ma njàkku ji ko fuur. boobu da doon dawul sama yaram moo yow jàpp te gërës mbaam bi nekk fi. dafa leer dégg naa dem moom nga diwoo de. ma naa dem moom nga diwoo. dafa leer suba teel nga ko diwoo dem sangu ci ndoxu géej bi mu saf sàpp. billaahi moo tax gisoo daf ma gis daf ma dugg si stade bi mu wàccu day caa xamu ko biir may daw. <laughs> dafa wàcc ci stade daw dafa leer xamul xet bi. foog nga jaar fii pour ci koroket yi. <laughs> bëri naa foog ma yóbbul ñam ci koroket yi. booy di leen yóbbul koroket. Zarko woo yërmande yaa ngi dégg yaa ngi dégg loolu ah kon xam nga ni grave rek laa am. waaw grave rek laa mais ñu gis arbitre bi sifflé. Zarko nga wàcc ba gën koo gàtt. stratégie la. Hmm. wala boobu da ko doon napp bañ mu ñëw. boobu de xoola xam nga lu ñu mënoon entraîné loo. fii nii. Hmm. xam nga lu gën a garaaw xam nga lu ñun grave dañu am lu garaaw loo xamante ni gars yi xamuñu ko. entraîneur bi xam nga lan la def. ci pax mbaa mi la dem. dem uti mbaam bu ndaw xam nga mbaam dafa naqaree jàpp dafa gàtt. Mhm. ñu bàyyi ko si teereem ñu may daw naa ma jàpp ko man kese. billaay wallaay ah, oh. man ak maanaam mbaam bu ndaw bi ba bu ma ne kii mbaam bi. billaay man ñu ne ma nag pare nga yow kii da koy daan. ci loolu nga liggéey. billaay wallaay mbaam bu ndaw ngay sëgg nii di ko daw di ko jàpp moo tax moom bi mu taxawee. Eh, moom bi mu taxawee mu indil ko mbaam bi. billaay wàcc si suuf mu xam ne kii nii buy siggi ma koy jël. billaay walaay xamoon naa man sama bopp xamoon naa ne mbay guy gi bu arbitre sifflé su ma ko gëddee day daw. foo tegoon loolu. parce que du du du moom laa war a xeexal ko mooy mbay guy gi du moom. sa loxo bi lu ci nekk. non bi may dóor dama yéex tëj loxo bi quoi moo tax. mu poignet bi laa yéex laa yéex a tëj baaraam bii nii mu dóor bi. xaw a dëgg xaw a xaw a kii quoi mooy. poignée fermé wul quoi. Mm, fermé wul bu baax. ñu gis la ngeen lewaatoo nga dóor ko mu leer nañu tuusu ko nga attaqué ci kawam. non gaynde yow xam nga lan la sénégalais xamul man bu ma nekkee Espagne. dama doon jàng ay xeexu yu garaaw. billaay wallaay am na benn jour maa ngi rappelé wu fii ñëw naa fii di bëre. micro bi may njëkk ñëw ñëw naa fii di bëre mooy bëre mobile. Mm. mobile ma def ko benn kele boo xamante ni dama daw ba yéeg ci ci yaramam taxaw ci genou bi. rek gaa yëpp ñu xundoo day damm day damm billaay wallaay taalaay ma taxawaat man sax def naa ko pare mais dama tiit parce que man eh, damay bëre ngay bëre man mooy bëre mooy bëre mooy bërewaat ci sa biir bëre di di ci bëre lu garaaw. kon daal Zarko bi mu demee Europe dafa màgg ànd beneen. non non maanaam boog de eh, dafa dem comme comme eh, comme dañ dañ ko def comme arme quoi. Zarko dañ ko def comme arme. xeexukaay comme xeexukaay quoi si. mais ñu gis bi nga xeex ak moom bi nga ko tuusee waat ko mu xam ne xeex bi arrangé ko mu bëgg a daw jàpp. Mm-hmm. nga jeexal moo jeexal bëri wala yaa jeexal bëri. non moo man maa ko jeexal parce que dama dama ko xool. micro bi dama ko xool xam ni xam ni mënatul sonn na. dara nekk fa après si si lay ñëw. nii di song dafa doyal si si lay ñëw di song. ma ma ma xëy ma faax. ma faax mu def kaat kàpp waaw. combat bi nag dafa yomb ñu si bàyyi ne ñu doon xaar combat bi ak coow lu ci am. combat bi yow déggoo man bu may ñëw fii bàyyi ma ñëw moo ma indi. doon mbay guy gi de man jamais yow ma eh, parce que dama promettre la kii nii nu mu tuuti bi. Mhm. a wax léegi ma fay. bu ma dalee bëre ba léegi combat bi lañ ma fay lu gën a minime. lu gën a tuuti lu gën a tuuti ci sama carrière. te imagine man ak euh, Baye Mandione man ak Baye la man ak Baye Mandione ñu ma fay huit millions. Mm-hmm. ba jox ma avance combat bi avance bi ma jox sax matu ko billaay walaay lépp nga bëgg a bëre man loolu man dama ko bëgg man yow bu ma jëlee combat bi sama gars yi fii ñëpp nanguwuñu dañoo siisu barki Serigne Saliou Mbacke mbëru écrit grand mbooloo yi kenn nanguwul xoolal dix ans lañ bàyyi bañ dem ñoom ñëpp ñu woo ma fële ñu toog ku ci ne dama wax dama wax man naan ma làmb ji man leen xëy ñu ne ma naan ma leen sëñ bi man ma loolu man mbër laa. Mm-hmm. te dem naa cinq ans yoo xam ne bëriw ma te làmb ji booy bi bëri na coow làmb ji di xam naa ne dina egg foo xamante ni eh, luy soxaliwaat làmb la maanaam boog man fi ma doon gisee ñoom gisee wuñu foofu xam naa ne tamit Mbaye Gouye sama du du du man ak moom. doon di xalaat mën na laa daan. non man mooy biddanti. non bokkul. xam nga man eh, li may li may wax la gars yi mënul comprendre man dañ ma arme lañ ma def. dafa nekk si dafa am lu nekk si man loo xamante ni du du nit mooy taxaw ma lay ragal benn nit ñaari nit noonoo non ñu xeex loxo loxo kese su ma doon def tey MMA kon Sénégal dañuy dañuy gé ñëpp dañuy tëj seen gémmiñ. boobaak léegi maa ngi la dégg nga koy wax xam naa ne dafa nekk sa xel moom. non dama bëgg a prouver dama bugg wane parce que am na lu nekk si man loo xamante ni bu ko Séné bu ko nit ñi xamee ci man nañ xam ni kii nii c'est c'est naar mu de guerre. si nga daan mbay guy gi combat sa combat ak Baye Mandione dafa war a taxawaat gannaaw boobu moo la fi andi woon. non boobu day taxaw man xam naa ne day taxaw. moo tax ma reprendre ma reprendre entraînement tey. moo tax noppaluwoo. non amuma defuma dara bay noppalu. def man di laa xam bi may may xale ba léegi entraîné rek suñu kër boo fa génn ñëwee doo ma fa fekk saal nga may fekk wala terrain fii nii wala géej hmm. suñu kër nelaw moom fay dugal. mais bu nekkul Baye Mandione donc ku ñëw baax na. man aw ma aw ma même même même même pas kii sax ma eh, xam comprendre nga. muy ñoom ñëpp déggoo ma ne la man ku ñu waxal rek ba pare. man pare naa nañu wax ak staff bi rek xam nañ fi ñu war a jaar képp ku ñu waxal rek man pare naa pour bu bëreeg moom. boo mun kàddu yu mujj loo ñu wax. waaw li may wax lu mujj rek mooy di di di woowaat Grand F ñëpp eh, l' ensemble zone 7B de Grand F di leen woo yéen ñëpp ngeen ñëw jàpp ci écurie bi. <coughs> jàppale ñu autorités yi ñu ngi leen di woo ñoom Khalifa Sall ñoo leen ngeen jàppale ñu ñoom Boubacar Camara ñoom Adama fay Modou Diop le maire ñoo leen ngeen jàppale écrit bi dooleel écrit Grand Yoff mbooloo comprendre nga eh, parce que euh, eh, nekk na fekke eh, féete ngeen foo xamante ni yéen da ngeen bokk ci ñun ñun dañoo bokk ci yéen ñu ngi woo ñëpp ñu kenn ñoom madame Ba ñoom Cheikh Bakhoum Cheikh Bakhoum di ko sant bu baax a baax di ko gërëm ci taxawaay bi mu ñu bi mu ñu taxaw di ñu jàppale bu baax a baax di sant mbëru Grand Yoff mbooloo yëpp bàyyiwuma kenn kenn kenn ku lim juum dirigeant yi maa ngi remercier ñëpp ci kaw ba ci suuf du ma wax benn tur ñëpp maa leen di remercier di di gërëm e, booy yi fi nekk yëpp supporters yëpp ñiy supporter écrit Grand Yoff mbooloo ñëpp ñu ngi leen di bëggee bàyyiwuñu kenn di kontaan ci yéen onon bandiraɓe haalpulaar men mbeltimaon no feewi njalande o yalti min liɓi cukalel ngel on jarama allah jarama joko njalo paax <laughs> mbokk yi gis ngeen ni lay demee ci jàmmaarloo ni lay demee ci jàmmaarloo tey Zarko lañ seet soon démb moo doon bëre ak ki nga xamante ni mooy mbay guy mbay guy gi di la jox dig daje beneen yoon ak yeneen mbër ci wasaare làmb jaa ngeen jëf